أثاري ملاسي أرجو برامتي ألا ألا يدر أن منك يا الله مليك يميني وقل مثال يا مليك بلا إساء بن بيجو دين منك يا الله خدست سريا يا قدوس متليا عني وعن كردي تدار يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي منك يا الله أنت سلام لاسي سلام تكن لي من أيا بنفسي بتي إن منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لس أبيستراي كما خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز لا في أطيب إيستي إذا يقلد للتكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم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 برور الكل يا الله يا خالق الخلق لغما أساء أبدا بالبر والسر والرلوان يا الله يا بارع الخلق قد لنا فدونا سن وخلي ajralil janaati yàllaaw asal musawiru qal lilil nabi busaaran wasawiran liyaadoo nal makri yàllaaw xalaata li kulla bin xat ataytu bi lisat bi sukriya خضار يا الله خاتني رديئك دعي بلا سبب مني غمدتك يا xaar yàlla. bàyyi ponkal lanu maanaam ba nga lambee daj kii ni sëñ Fallou yii nga gudd fan. di nuyu jarbaat bi di nuyu taalibe yëpp rawatina Baye Fall yi nga xam ni nag da nga leen a fuqat ñi waaye ñii sëñ mu demit ak Seex Fall Baay góor yi mu <laughs> billaay fa ngeen day ponkal nangu leen rek waane bu may dugg si Seex Ibra laa yëg bu ma toogee Seex Ibra laay yëg sëñ Fall nag moo ne Seex Ibra maa jaway yool bi lu ab sëriñ di yor mi ngi ci man fàllu te teewu may galas lu mburi di yor mi ngi ci Ibra Fall ci teewu koy làmp boo jaxasee sëñ Fall ak Seex Ibra Fall ñoo yoonu murit murit yëpp a nga fa Seex Ibra sëriñ si yëpp a nga bàngu fa sëñ Fallu moo raw ñëpp moo man ñëpp moo gën a jege sëñ Bamba ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ànd ak sama rakk Mamour Mbaye Moustapha Kane jarbaatu Alaaji Bakki Faye Matar Fall nii nu sawaree nag bu nu jëmee woon feneen te te du ci yow mën naa ñu ànd ak moom ngir aw meloom waaye nii suñ xol yi nux yaa ko waral jàmbaare ngi ku tabee ngi nii bëgg naa àddina yëg ma ndax man du ma waxi jaxan kuy dimbalee ngi nii day tas million toog jox ko gone yi léegi waaye nag ku yàlla dimbali te doo ñàkk boo dimbalewul gore woo tugg tey togglu li ngay togg nga yàq ba lekk ak soxna sa doom yaay kan ñeentey ànd nattu naa ko ci koo àndal mu tànn la dimbaliwu la ëpp la doole yërëmu la mën a dem xaaru la xam lu baax lu la man a jëriñ waxu ko sànni ko wasalaam ku sëñ bi te sëñ bi muy sab taalibe ndax waa ko fu kawe noonu la jàppe sëñ si la Baay Faal mi sëñ Sylla nag daa wax wax jépp dana sëñ Alsaan yàllaa la dimbali ndax nun dey ba nu lay fekk ca sa appartement ba ca fiiñ bi booba juróomi nit du la wër kàddu yaa nga waxoon nag saa su ne nu koy fàttali murit yi ndax booba bu nu toogee li ngay njëkk a wax mooy danaa mas a xadde danaa mos a xat muy ñetti tableau yoo xam ni. da wan ko ko mu gis ko waaw. benn bi benn bi Allahu la. benn bi saada benn bi Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi. ñi jël kàddu dañ la mën a jëlal kàddu jëlal kàddu sëriñ bi kon dañuy baaxantal rek. nii nga def si ndigalul sunu borom la wa awfu bi ahdillahi iza ahadtum yàlla nee na féeg joxantewu leen wàll wëllëre sama yónne ko ci waaye bi ngeen ko xasee def nag maa ngi leen di déglu wala tanqudul laymaana ba'da tawkiidihaa nee na kóllëre bu ngeen ko xasee giñ ba feddali ba noppi bu leen ko firi waqad jaaltumullaahu aleykum kafila nee na yàlla def naa sama digganteeg yéen ne maa leen di saytu di xool ba xam li ngeen di wax dëgg la ci yéen wala dëgg bi nga jàppee sëriñ bi ba léegi wenn jàppin rek la foo mën a ne ndax sëñ Ablaye bii banaana li muy wax ci yow saa su ne ñu koy dégg te jotaay bi daf ko firndeel sëñ bi nag bégg na lool ndax jëmb ji nga taxawal fii muy fas wi fas dafa sore ci lislaam lool ku ne xam na ni bi lislaam di taxaw fas fas moo ko taxawal ak ka ca war muy saxaabatul rasul ak fas yañ daan war sëriñ Fallou moo nu wax ne ndax ci làmmiñam lañ ko dégloo ndax gisuñu ko waaye kaset baa ngi fi nee bi sëñ bii demee jóge Jolof muy Mbàkke Baari di dajeek tubaab bi sëriñ Fallou nee na bi mu nu wooloo maag sama mag ju baax ji nee na fas wi ëkk gi mu dendeel sëñ Fallou nee na maa ngi fàttaliku ëkk gi ba tey nee na danoon yebb yebbal la wax nee na fas wi tànk kanam bi mu ngi sës ci ëkk gi nee na sëriñ bi war ci ne ci kaw tiim ñu maag sëñ Mourou Moustapha jël loxoom na ko ràpp ci boppam sëñ Mourou Moustapha jël beneen loxo bi na ko ràpp ci sama bopp bi nañu maa ngi dem bàyyi naa leen ak yàlla dénk naa leen yàlla daan la gees maam Cerno na ko bu ñu saalañ bu ñu buul bu ñuy wax wax ju ñett yi la digal digal maam Thierno maam Thierno loolu mooy ndamam ci kaw yoonu murit maanaam ñu mel noonu rafete noonu baaxe noonu Serigne Touba war leen woon ginnaaw di leen ko dégg te nga lijjanti ba bi ñuy ñëw dara méjju ci. dara xam nga am na tawat du ñuy wax pes tàbbi woon na ba laal suñu baara wax nañu moo tax mu xawoon a lepp. maam Thierno dafa sukk ni yàlla njabootu Serigne Touba yi buñ naree dem sama njaboot gi dañ dem ba jax takk loolu la jaayanteeg suñu borom yàlla bàyyi fi ak njabootam bàyyi fi njaboot Serigne wax nañ ni alximis ju jot ni tey xar la leen di lewetalal ndax buñ buun ja buñ saalañ mooy seen bopp bi nañ koy wat te mas na maa dégg Serigne Saliou na gone bu dee watu tey sëlmu jëru sax muy sangu bu wàññi dara kon sëñ Alassane fas wii nga indi tey day fàttali na ñu awnullaahi ak ngelamu ndax dañoo wax ne képp ku la jox fas da fas daa am ngërëmul yàlla ba noppi ku la ko jox cofeel gi mu la ëmbal kenn xamatu nu toll ak ñetti cadre yi nga indi yooyu yëpp cofeel gi nga am ci yonent bi sallallahu alayhi wa lay wone xam nga bu ngeen déggee sëñ bi ne yaminu rabbi liqaa'uhu ahab ilayya min mil ibuyuti zahab sëriñ Tuubaa nee na bu ñu ma joxoon ay néeg yu fees dal ak or dañuy yonent bi moomu gënal kon soo ñëwee indi fi cofeel gu toll noonu te kat danañ nag nii képp ku cofeelam dëgg ci yonent bi te mu wér bu wér a wér te nga cof sëriñ Tuubaa dañ la koo jiiñ kon faw nga am cofeel Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa def ne lim nekkoon di ko yeesal man mii la ko yàlla yeesal loo lil na nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhul xarra wa inni ahmadu ndax yàlla daa def kat melokaan yenn woon ci yàlla def na ko ci man kon soon tegoon tànkam ba fas yéene naa koo teg te ñëpp danañ ko joxe nifaali wa ibqaa'i wa fawsi bila ana bi kaw ni xadimal Moustapha tatabayan nee na ndollal li ma am li ma yàllay jox ak desal gi ma fay desal ak texe gi may texe ëllëg nee na ci liggéey gi may liggéey rasul ci laa ko ñëw nga ci nag ci jëmm joo xam ni jotaayam biis yàlla rek la ak yonent bi ak sëriñ Touba ak Serigne Fallou Mbacké jotam gépp jox na ko doomu aadama yi li Serigne Fallou ne woon yàlla boo koy topp danga koy topp ci juróomi ponk yi mu wàccee waaye neen boo ko bëggee jaamu danga nga koy da ngay jàng koy jaamu ci ci mbir bi na yàlla boo ko bëggee topp topp jaam topp yàlla ak jaamu ko ba ku jude lim digle muy woor aj màkk natt asaka ci loolu la ñuy toppee yàlla waaye nag jaamu yàlla nag ci jaamu yàlla lañ ko def loolee rafaatal na ko moom Serigne Fall rafaatal na ko te maa ngi lay wax ni puso bi mu yor di ko ñaw ci yoon wii cey bu yaatu ne moom day xam naa ne yàllaa dogal am ci moom lu am ci moom lu bari dootu mën a yóbbu ndax yàllaay dogal loolu hmm. waaye bërki démb bégal la ci Touba xol yoo xam ne mën naa defar àdduna te ci yoon la koy teg de sëriñ Mountakha la njëkkee te siyaare daa bokk ci liy dindi ay bàkkaar àdduna ak àllaaxira ndax sëriñ Touba ko waxoon inna lazina ila sar saraka xasadu siyaarati faaraxul daarin aw sara xam nga tax ñu di ko indi ba mu koy def ñun la àndal te néewu ñu jëlal jël leen appareil bi photo ma waaye nag nettali lu baax dana tax mbooloo man koo jëriñoo moo tax sa gaañ yi lii ñu doon wax lu am solo la bi mu siyaaree Serigne Mountakha mu bëgg ci moom lool wax ci kàddoom yu kaw yi mu ko wax na sa xel dal lépp dina baax maa la ko wax mu dem ci sëñ Ahmadou Mokhtar mu ne ko sa fereer laa sëñ Siidi si Abdoulaye la ci teg sëriñ Siidi sëriñ Siidi mu si Abdoulaye fonk gum ko fonk tax mu ne ko ku toll ni yoonu bu jógee ci dama ko war a yëg ba mu yàgg ma ne ko ak ah, sa kër da nga ñëw sax ci moom lool sukk googu ma koy sukkal si say siidi ci mbaax gi danaan ko jugul jugul jàpp ci loxo bi di ko yëkkati da koo ñewental ndax xam na ne li muy def ak mbaax ak bëgg yoon bi moo tax mu di ko def waaye xam na ne sax mu maytu sëñ si da koy da koy feeñal mu dem ci sëñ Ahmadou Mouhtar sëñ Ahmadou Mouhtar dafay ku yéeme daf ne ko sa frère laa waaye nag yow discipline yoon wi nag koo xam te di ko doxal kàddu gu neex la dana ko su frère la te te loolu ma ko wax dama koy waxaat ndax def ne ko maa ngi yow ñoo bokk benn garaat yoon bi waaye discipline ni mu yoonu murit yow da koo xam te di ko doxal te loolu di kàddu gu am soo da koy pratique ab jàngalekat la mu dem sëñ daam Atta moom moom Serigne Ibrahima mu baax bi sëñ daam Atta nit ku baax te bëgg Serigne tubaa lool fekk mu fatu Serigne bi del siwaat fii nit waaj delluwaat siyaare ko siyaar bu neex mu yëkkati fi kàddu yu kawe kawe kawe yoo xam ne mën naa dellu si am murit tegal ko ci yoon mu jóge fa ñu ne déetewaay mu ñëw toog ci këram si aboon na ko dama lay fekk si yow sëriñ Seex Say waaw la dem ci kër sëriñ Soñ bu ñu ne ko ma nga ci këram gi ci corniche mu fekk ko fa sëriñ Seex Say man mii sax ba ma yëkkati kàddu dane ma ab taalibe daa am fu mu war a man xam naa li tax muy wax ñoom ñoom seen kàddu boo ko déggee dafa am ay dafa am maanaam muy ne ci biir li may bëgg wax ne kii dama am cofeel ci moom ba sama digga bëgguma ko ci wax foofu laa déggee man ah, waaw mu bëgg lool ne ko sama màggal gi de boo gisee ma woyofal ko mu ne ko waaw mu ko sëñ Fallou mooy royukaay te moom ci moom la jëkki mooy mooy Kazu Rajab déggal loolu nee na sëñ Fallou mooy royukaay yoonu murid ci loolu ci loolu la jëkki bañ jógee foofu nag si la si la sëñ aboo mu sëriñ Fallou mi nga mu baax bi lu bëgg sëriñ Fallou lépp ta takk sëriñ Fallou ñëw ànd ak yëpp ñu fekk si fii bi mu ko fekk si fii ba noppi sëriñ bi euh, yaatal ko war ko sa kër li fi nekk lépp yaa ko moom waaw mu toog xaar ko ba muy waxee yow téléphone sax dégg maa la mbaa mbaa noonu dana baax nga naan ko Mbàkke loo wax rek dana baax. akala waaw mu ñëw fekk si ko ba muy dem dana rakkam yëpp digal naa leen ngeen ngeen dogu mu yàgg fi téwér digal loolu la wax ci mu xëy suba teel dem ci Serigne Abdoul Fattah Serigne Abdoul Fattah bëgg lool ndax moom cofeel gi am ci yoonu murid da koy sàmm di ko doxel jëmu jooj daal nga fekk si ñàlla sax ñëpp bëgg nañu nag ndax li tax ñu bëgg mooy nit ki darajaam bu ko wàccee ba mu suufee ñëw fekk si la looloo may wone ak yéegam sëñ Saliou dafa toog dafa dafa wàcc ci suuf teeru laay Wade seen première gise ci ci ci président gi ba mu demee ba ci ba ci guddi mu ne wàcc gi ma wàcc toog ci suuf ndax xam ngeen lu ko waral ñu ne déedéet mu ne yonent bi nee na nit su wàccee darajaam ngir sa daraja nee na yooyu da war a wàcc sa daraja ngir ngir sa tànk yii nga dox na nga xam ne lu diis la ci yàlla lu diis la ci balaasu yàlla ndax sëriñ Fallou tax nga def ko te sëriñ Fallou day mooy lépp ku jëm si ci moom mii danga fekk mu toog di la xaar ndax kat yàllaa ko booleeg sëriñ Fallou waaye bi mu koy booleeg sëriñ Fallou da ko wutal ay waajur yu tedd ñu ànd ak sëriñ Fallou ñu war a ànd ak moom ba ba teraanga jooju am xam naa ne foofu sax du bëgguma xuus bi waaye nag looloo xew sëriñ Tuubaa li may def ci nit ndey ju liggéey mënu ko waaye dama ko def loolu ci fekk ci nga ak délégation bi nga yëpp jërëjëf. di amaan mbégte. Eh, di teew teew ci ci na di teew ci bërëb bi. mu nekk yiw bu rëy nee na mu nekk. na mu nekk. yiw bu rëy ci ñoom. yiw bu rëy ci moom. daanaka dañ ko sante sëñ Ablaye. nee na daanaka dañ koy sante Cheikh Ablaye mi taxaw. ak ñoom sëñ Moustapha. ak ñoom Cheikh ak sëriñ Mamor. ak coono bi nga xamante ni. ak coono bii nga xamante ni. sëriñ Silla. sëriñ Silla. ñaari ñaari fan a ngi nii. bàyyi ay soxlaam. nee na mu bàyyi ay soxlaam. nekk fii ci Touba. nee nekk fii ci Touba. di waajal sama ñëw fii. nee na muy waajal ñëwam fii. ma sant ko bu wér. nee na mu ngi koy sant bu wér. ci taxawaay boobu. nee na ci taxawaay boobu. di delluwaat encore di santaat yàlla. nee di delluwaat encore di santaat yàlla. bi ma ñëwee jàkkaarloog sa jëmm ju tedd ji. nee bi mu ñëwee jàkkaarloog sa jëmm ju tedd ji. ña ma fi fekkoon. nee na li mu fi fekkoon. ña ma fi fekkoon. nee na ña mu fi fekkoon. bi fi mujjee ñëw. bi mu fi ñëw. ñu ñu la. nee na ñu daroon la. fi ne ba tey. nee na ñoo fi nekk ba tey. loolu nag. loolu nag. yàlla dafa wax ci alquranul karim. nee na yàlla dafa wax ci alquranul karim. inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi leyli wan nahaar. la ayatin li ulil albaab. inna fi xalqi samawati wal ardi. waxtilaafi leyli wan nahaar. kulaa ayatin li ulil albaab. kulaa ayatin xel yooyu muy waxal. nee na boroomi xel yooyu muy waxal. mandarga la. nee na la. ci sa taxawaay. nee ci sa taxawaay. ak ñi Serigne Jatara moo yoroon kaddu gi jamono jooju. nee na Serigne Galas Jatara mii moo kaddu gi jamono jooju. ñoom ñaar ñii nga présenté ma leen kenn ku nekk. nee na nga présenté ko Serigne Mbacke mi toog ak Serigne Khadim mii taxaw. wax ma li ñu doon ci yow. nee na nga wax ko li ñu doon ci yow. kaddu ya yi yëkkati woon ci jamono jooju. nee na kaddu ya Serigne Galas Jatara yëkkati woon ci jamono yooyu. ak taxawaay ak taxawaay ba mu amoon. loolu. loolu. moo fi nekk moo fi nekk. wala ñu sof ca. wala ñu sof ca. la gën loolu la gën loola. ci taxawaay nee ci taxawaay. te sëriñ bi. nee sëriñ bi. réew mi ñu ne léegi. nee na réew mii ñu nekk léegi. ba ci biir sëriñ si. nee na ba ci biir sëriñ si. téye sa mbooloo sax lu jafe la. nee na sa mbooloo sax lu jafe la. te jikko moo koy def. te jikko nag moo koy def. te loolu nga làmboo. te loolu nga làmboo. ndax soo déggee sëriñ jatara. nee na soo déggee sëriñ galas jatara mi toog. mu wax mu wax. seet ci biir wax na da seet ci biir wax ji. cofeel gu kawe. nee cofeel gu kawe. guy guy guy riir ci moom. nee jëm ci yow. nee na jëm ci yow. mais jëmi tamit. waaye jëmi tamit. ci njaboot ci njaboot gi. may sant nag. nee na muy sant nag. di ñëwaat fekk la fii. nee na di ñëwaat nag fekk la fii. bettu ne bettu la de wante. fekk ba la fekk fii fekk bi ma la fekk fii tey. bettu ma ne bettu ko. waaye lépp mënuñu ko wax ci micro. nee na lépp mën mënuñu ko wax ci micro bi. ndax bi ma fi ñëw fii ci Touba. nee na bi muy mujjee ñëw fii ci Touba. yow laa seet si. nee na yow la fi seet si. ñu am lu ñu waxante. nee na ñu am la ñu waxante. boobu laa fi gëjoon. boobu la fi gëjoon. bi ma décidé waat ñëwaat. nee na bi mu décidé ñëwaat fi yàlla tey jii la ma ko yombalal. nee na yàlla tey jii la ko yombalal. ma sant la nag bu baax. nee na mu sant la bu baax. ñaanal yàlla. di la ñaanal yàlla. loo xamante ne nag. loo xamante ne nag. man du ma nelaw guddi aussi. nee nag moom du nelaw guddi aussi. sama diggante ak yonent bi. nee na digganteem ak yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. li ci nekk. nee li ci nekk. su ma ko waxee nit ñi. nee na su ko waxee nit ñi. hôpital Fann ca dof ya jëm. nee na hôpital Fann ca dof fa la jëm. sama mbiru bopp nee na mbiru boppam la. waaye su ma dikkee. waaye su dikkee. dikkal dikkal nee na mu dikkal ko. amul guddi jot. nee na amul guddi gu jot. te ñaanuma nga te ñaanul nga wér. nga yàgg fi. nga yàgg fi. ndax sa taxawaay fii. ndax sa sa taxawaay fii. am na solo. nee na am na solo. léegi rek Serigne Jatara. léegi rek Serigne Jatara. dafa wax ne. dafa wax ni. sa taxawaay. sa taxawaay. sunu ko xoolee li muy defar ci biir Touba. nee na sunu ko xoolee li muy defar ci biir Touba. kenn xamul ni mu toll. nee na kenn xamul nu mu toll. yaakaar naa ni sax. yaakaar naa ni sax. defaram defaram. romb na léegi Touba. romb na léegi Touba. ba ŋànk. réew mi réew mi. li ko waral nag li ko waral nag. dafa am benn sama benn wóllëre. dafa am benn wóllëreem. ñuy waxtaan. ñu ne ñuy waxtaan. ci exilu Serigne Touba. nee na ci exilu Seexil Xadim. mu ne ma mu ne ko. tubaab bi dafa décidé. nee tubaab bi dafa décidé. yóbbu ko nee yóbbu ko. Gabon Gabon. ma ne man gisewu ma noonu. nee na moom gisewul noonu. mu ne noo gisee. mu ne ko waaw noo gisee. ma ne man su déggee daaju Assirou. nee na moom su déggee daaju Assirou. maa ngi waxtaan ak sëñ Mamor ak sëñ Moustapha. ne mu ci waxtaan ak sëñ Mamor ak Cheikh Moustapha. da ngay xam ne da ngay xam ni. sëñ Touba moo décidé. sëriñ Touba ci boppam moo décidé. dem ca géej ga. dem nag ca géej ga. ndax dama jël ñaari ñaari dama jël daaju assiru. nee dafa jël daaju assiru. jël benn bateau buy waaj a bateau vapeur. nee na jël bateau vapeur. buy waaj a tegu ci ndox. nee na buy waaj tegu ci ndox. ma xool ma dégg ñu ne assiru ma déglu vapeur bi gis tam vapeur bi def na même chose. na bi mu déggee baatub assiru nee na dégg nee na vapeur bi def la même chose. après ma indiwaat. maala abrari hiina assiru mu mel ni hélice. buy laalanteeg ndox. dé dé dégg nga. waaw waaw waaw. hunaaka asiiru. maala yaarillahi bi nabi. wa maali li xayrillahi. xaw تسير بي الجسب التي عادني إلى كريم عليهم ما أروم يسير duma sax sori waaye yenn saa yi ne ne ñu ñu ñu déglu ndax mu ngi mu ngi ci xasida ak asiiru am lu mu ci leeral ma ne yenn saa yi nee na yenn saa yi nga toog ak kilifa nee na nga toog ak kilifa yàlla dimbali la. mu ne yàlla dimbali la. nga wax dara mu seddal xolam. nee na nga wax dara mu seddal xolam. toogaay bi dem ba ca biir. nee na toogaay bi dem ba ca biir. mel ni lu ko neex sax. nee na xaw mel ni lu ko neex sax. yàlla roof yërmandeem. nee na yàlla roof yërmandeem. ñi am aajo ne fekke jotaay boobu. nee na ñi am aajo fekke jotaay boobu. seen jotaay jaaree fa sotti. nee seen jot seen seen aajo nag jaaree fa sotti. waaye bi rek sëriñ bi. nee fi muy daanelee sëriñ bi. mooy. waa ji daf ma laajaat ñaari laaj. nee na waa ji daf koo laajaat ñaari laaj. ne ma waaye. ni ko waaye. fii Cheikhul Khadim demoon. fi Cheikhul Khadim demoon. amoon na yoo. ne amoon na yoo. yoo bi yoo bi. moo rey Samori. nee na moo rey mu ne ma amoon na jasit. mu ne ko amoon na jasit. jasit bi jasit bi. sonaloon na. nee sonaloon na. képp ku fa tubaab bi mos a indi. képp ku fa tubaab bi mos a indi. ma ne nag. mu ni ko nag. différence su Cheikhul Khadim. différence su Cheikhul Khadim. ak ña fa tubaab ba yóbbu woon. ak ña fa tubaab ba yóbbu woon. yonent bi moo dox seen diggante. ne yonent bi ci boppam moo dox seen diggante. mooy marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzaxun laa yabxiyaan. marajal bahrayni yaltaqiyaan. baynahuma barzaxun laa yabxiyaan. mooy ligne invisible boobu. moom ak jasit ji jasit bi. courant d'eau bi jógee Katanga moo koy wàccee fa lambare nag. nee na courant d'eau bi jógee Katanga. moo koy wàcc ci boppam. dafay excité nee dafay excité. mais su Cheikhul Khadim. waaye su Cheikhul Khadim. tiimaan dex gi rek. tiimaan dex gi rek. jasit gi dañuy puus. nee na jasit gi dañuy puus. di yëngal seen seen i genn. di yëngal seen i genn. di barkeelu. di barkeelu. ci taxawaayam. nee na ci taxawaayam moom Serigne Touba foofu. foofu la yemale wax ji. di la wax ni nag di la wax ni. colère bi colère bi. ñëw gii ma ñëw. nee ñëw gii mu ñëw. doon ko feddali. nee doon ko feddali. doon ko sàmm. doon ko sàmm. di la ñaani tamit. di la ñaani tam. nga teel ñu ko. nga teel ñu ko. ni ko Serigne Jatara waxee. nee ni ko Serigne Jatara waxee. ñun daal ñun daal. bëgg nañu la. bëgg nañu la. fonk nañu la. fonk nañu la. safoo nañu la. nee safoo nañu la. lépp ngir. lépp ngir. ngir sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sa maam Seexul Xadim ak sa waajur Serigne Fallou Mbacké mu ngi lay sant di la gërëm ci jotaay bii ak ni nga ñu ko defalee ak ni nga ñu ko defalee ak ni nga ñu ko yombalee ak ni nga ñu ko yombalee yal na yàlla fay la ko yal na yàlla fay la ko ci baatu euh, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da iza da'anni mhm. falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun mhm. ci baat boobu nee na ci baat boobu ak euh, baatu asalaamualeykum. ak baatu asalaamualeykum. alxaqu min rabbikum. alxaqu min rabbikum. faman caa fal yumin. faman caa fal yumin. wa man caa fal yakfur. wa man caa fal yakfur. wa salaamualeykum. wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. tabarakallah. sëriñ bi nee na mi ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax a baax a baax. di ko bëgg lool. sëriñ bi nee na mi ngi lay bëgg lool. ak mbaaxam nag. sëriñ bi nee na sag mbaax nag. yaatu na yaatu na. ñii ni ñu ko waxee. ñii ni ñu ko waxee. xamale ma ko noonu. xamale ma ko noonu. noonu laa ko xamee ci yeneen. nee na noonu laa ko xamee ci yeneen. ci ñeneen. ci ñeneen. ci réew mi ci réew mi. ni ñu ko ni ko ñii waxee. ni ko ñii waxee. noonu la ko ñeneen di waxee. noonu la ko ñeneen di waxee. bind boo xam ne. loolu bind la boo xam ne. yàllaa ko def ci yow. ko def ci yow. sa tolluwaay. sa tolluwaay. ak sa melo. ak sa melo. ak ni ngay doxee. ak ni ngay doxee. lu yàlla def ci yow la. lu yàlla def ci yow la. te. te. ku xool. ku xool. sa mbir. sa mbir. xam ne. xam ne. li nekk say mbir. li nekk say lu yàlla def lu yàlla def la. mi bu baax. sëriñ bi nee na mi ngi lay bëgg bu baax. fii. sëriñ bi nee na ñëw gi fii. rëy na lool ci man. rëy na lool ci man. jëmmi sëriñ Touba. jëmmi ak alaaji Fàllu ñoo tax nga def ko. ñoo tax nga def ko. ak sag mbaax yow. ndax fii sori na. tàng na tàng na. kon boo fi nangoo ñëw. nangoo ñëw. sam mbaax moo la ko may sëriñ bi nee na na nga xam ne daal bëgg nañ ci yow bu baax bëgg nañ ci yow bu baax jàpp nañ la bu baax jàpp nañ la bu baax yëg nañ sag mbaax bu baax yëg nañ sag mbaax bu baax léeg-léeg sax damay seetaan euh, télévision bi léeg-léeg sax damay seetaan télévision bi gis ci sa jotaay gis ci sa jotaay waaye ña nga ca nekkal di wax. ña nga ca nekkal di wax. ay jàmbaar lañuy ñuy doon. ay jàmbaar la doon. ci kàddu ci kàddu waaye boo yëkkatee sa kàddu rek. day suul seeni i wax. day suul seen i wax. ndax. ndax. am solo gu say kaddu di am solo. am solo gu say kaddu di am solo. ci xam-xam ci xam ak mbaax ak mbaax. lépp la ciy lépp la ciy feeñ. moo tax moo tax. fi mu nekk nii bu ñu la dee wone. ci télé bi ci télé dama di ko seetaan dama di ko seetaan. sa waxtaan du ma ci doyal. sa waxtaan du ma ci doyal. lenn rek ma naqari. lenn rek ma cee naqari de. la muy jeex te du doyal. la jeex te du ma loolu rek moo ma ci naqari. yàlla moo la def yooyu yëpp yàlla la yëpp yàlla la ko defal. sëñ lii ma doon wax bu yàggul rek ci sëriñ Mahi Niass. damaa déglu waxtaanam. sëriñ Mahi damaa déglu waxtaanam. ma ne waxtaanu boroom xam-xam la. wu am fit. te dëggu. waaye waxtaan wu mel noonu. moom laay gis ci say wax. moom laay gis xam-xam boo xam ne. am na fit. dëggu na waaye ñëw nga foo xam ne fii day waaye ñëw nga foo xam ne fii day ak yokk rek nga fi jëlee ak yokk rek nga fiy jëlee ca kanam rek jëm danañ ko ñaan ci alaaji fallu mu defal nu ko ci yow yokku rek yàlla na ko yàlla def sëriñ bi nee bég na bu baax li ma bëgg nag maa ngi ko doon wax sëñ Mor ñoom ñii bëgg ñu jàpp bis boo xam ne dañ koy jàpp jàppinu kawe wu am solo woo xam ne da ngay ñëw yendu si fële ci kër ga ma sëriñ bi na mi ngi la koy ñaan ñoom ñii ñoom sëñ Mamoor ñi dañ ko dox ak ñun ñii ci wetam lañ ko danañ ko bokk dox ak sëñ si la Baye Fall mi ngeen yendu si fa kendal loo xam ne boo ñëwee xam naa ni nga toll sax xam naa ni nga toll sax du ca neex a wane lépp waaye danañ def nag suñ kéemtalaay kattan boo nga xam ne ku fa ñëw. dana xam ne gan gi ñëw fii. xam ne gan gi ñëw fii. fonkees na ko fii fonkees na am na cër te fonk nañ ko te fonk nañ ko. loolu sëriñ bi nee na loolu daal sëñ Alassane mi la koy ñaan waaw. Ah, nee na may na ko. ah na may na la ko. sëriñ bi nee na alhamdulilah rabbil alamin sëñ Moustapha sëñ bi nee na ngeen toppatoo ko waaw. nee na fan yi nee na ñu jox ko fan yi jàpp bis bi. seet ban bés lay doon rek nee na fas wi muy naaru góor wi. nee na wax naa li ma wax ci fas. nee na doy na. doy na sëkk ci fas. kon kon day. man day. maa ngi door a gis lu mel nii. sëriñ bi nee man day ñu bari jox nañ ma ko waaye fas de di ñëw fii di ñëw fii indaale ko maa ngi koy door a gis nag sëriñ bi nee na mi ngi koy door a gis te fas wi daa mel ni dafa xaw a niru dafa xaw a niru ndax fas yi bi mu taxawee ba léegi. daf na tekk rek. yow la gis ak kiñ ko jox ak kiñ ko jox barke borom dafa fay fekk. waaw. di doole lañu. waaw. ñoom ñëpp war nga leen yeewi nee na mi ngi gis fu ne ca baar ba mbooloo mbooloo ma fa toog te nee na gis na dañ ko aajowoo sëriñ bi ne li mu doon wax ak nii doxinu ku jëm fu sori daal moom ngay dox moom ngay dox nee na da ngay seet li nga ma jox waaw. léegi <laughs> nag bokk naa ko ba ci biir.

nee na mu ngi koy dégg. ñor na ko de. nee na bëggul nag mu yàgg. nee na bëggul mu yàgg. bëggul mu yàgg itam. xam naa fii ak ñaari semaine daal di tàmbali ko lool. جميل وعقل مثال يا مليك بلا إسان بن بيجو din منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا عني وعن كردي تدار يا الله